soppli yéenekaay ni ñu xamal ni li ko dalee Kaolack jàpp dakaar ba ca boru ko Touba fépp ndox kott la taw yu njëkk yi nag waaye tamit mbënd bu njëkk la bu ñu koy xayma bokk na ci daal ndox mi euh, bokk na ci daal li nga xam ne daal moom moo jarul askan wi daal euh, loolee di ay jafe-jafe ca boru ko capital yu Sénégal ca boru ko ak capitalu ko mouridisme daanaka jafe-jafe am na taw yi la sax waral nañu fii ci Dakar dem ba bus rapide transit di BRT maanaam dawul rek mujjee taxaw jawriñ bi gàlloo lépp jëm ci wàllu assainissement du Cheikh Tidiane moom nag dawoon na rek ca ko Kaolack ngir daal leen wallu ji la mu fa xam ne daal moom mooy mosu faa diggée ni daal mbënd du am waaye la mu daal mën a waxtaanee jamono ji bokk na ci ay jafe-jafe yoo xam ne daal yàgg nañ te kenn mënu koo saafara ci diiru ko ñaar jàpp ñett ci ay weer bokk na ci kàddu yamu fay yëkkati njiitum réew mi tam Bassirou Diomaye Faye wax na ci coolu ni mel jox nag askan wi ab bataaxal maanaam ab message la muy wax doon xaaree daal taw yu njëkk yi bu ñu amee daal jafe-jafe eh, am loole bokk na ci lañ doon xaar waaye moom Bassirou Diomaye Faye la mu ca teg moom mooy ci diiru ko ñetti weer nag mënuñu rek taxawal ay jumtuwaay yoo xamante ni daal daañu eh, teg eh, ni daañu dakkal li nga xam ne moom mooy yi lekk inondation maanaam mënd bi loole daal ci ab diir bu gàtt bokk na ci daal la bu leen xamle waaye daal terewul muy wax ni gouvernement bu Sénégal dana taxaw askan wi ci seen ak jafe bi ñeel wàllu ndox mi bés bi la jour yéen kaay nag nañu Kaolack ak Touba la ñu dal gis moom mooy ndoxu kott taw yu njëkk la coow lu njëkk bu ñu koy xayma cotug yëglekaay bi Kaolack bëri woon na ci nag ay dëkkuwaay yoo xam ne daal kenn mënu ma fa woon a jaar waaye tamit njaboot yoo xam ne daal ñoom yenu nañ seen ak bopp di yuuxu wallu ca booru ko Touba tiitaange am na nag donte sax jot na nañu tàmbaliwaat liggéey ak assainissement ba la tribune yéene kaay moom xëta mu njëkk daal nañu usmaan Sonko Bassirou Diomaye ñoom nañu jànnool jamono ji moom mooy jafe-jafe yi mbënn mi Rufisque Kër Massar Tivaouane Peulh Malika fépp ndox kott la askan wa tam ñu ngay yuuxu bu ñu koy xayma ca Touba tam fees na dëll mbedd yàq lépp loo xam ne daal moom mooy yoon ya la ñu ca gis jamono jiitu leneen lu dul ay dex maanaam loolee kott lay nirool mu mel ni nag jamono ji ndox mi nangu na fépp li ko dalee ngaan jàpp coof ak ba ca Medina Mbaba Dakar Times moom la mu ca teg moom mooy naka situation bi tar na lool jamono ji ñuy àddu fii ci réew ko Sénégal ndaxte fi ñu xam ne daal mu ngi toogoon di waxtaane ah, téeméeri doomi aadama yàllab ca biir ah, géej gi warnut naka wutali baru ko Espagne jamono ji jafe-jafe bi ñu ciy waxtaane moom mooy wàllu ah, inondation maanaam mbënn mile ci taw yu njëkk yi mel ni daal jamono ji foo làmb cerew ko Sénégal dafay métti ci ndorteelu ko nawet bile Ousmane Sonko ca boru ko critique yéenikaay bokk na ci daal jamono ji la ñu fa nemmeeku waaye tamit beneen ponk ba ñeer rek jamono ji mbiru ko yorinu ko mbënn bile nañuy def nag mafia des eaux maanaam koppar yi nga xam ne daal ñu ngi ko ci def ngir rek askan wi jot ca jole ay ay mbégte bokk na ci daal loo xam ne critique yéenikaay mu ngi koy juqi tey jii ci xetam mu njëkk loolee muy waxtaani nag programme yi fi jot a jàll ak koppar ñu ca def waaye tamit la nga xam ne ñu ngi ko ci xaarandi jamono ji yéenekaay bi ko ubbee fekkaat fa eh, di ko amal mu mel ni daal moom mi ñu duppee koromaak ak gouvernement ba ah, ñu ngi ci bi lekk liggéey bokk daal ay accord minier maanaam ay déggoo yu jëm ci wàllug eh, wurus gaak pétrole ba gaz ba eh, lépp jëm ñu ñëwal wàllug napp gi waxtaan nañu ko fa loolee daal bokk ci nga xam ne daal moom Ousmane Sonko la mu xam ne daal moom mooy fa ñu daal di ko xaymawaat segg ko saytuwaat ko bu baax a baax waaye nag yéenekaay bi di source a nee na jamono ji nga xam ne moom Ousmane Sonko daal mu nga nekkoon foofu noonu eh, di eh, bàkku ci coolu lu mel dafa mel ni daal taw ba tooyal na lépp loo xam ne moom mooy la mu fa doon waxtaanee ba yàq sax coow loolee bu ñu ko xayma. direct news yéen kaay moom nekk ne na ndax Ousmane Sonko ka ko yëpp yebbu ko lu baax maanaam na mu ko briefé daal baaxul tax kooku daf ko gën a dugal wala déet bokk na ci daal laaj ba mu sàmp ndaxte programme bu jëm ci fukk nag ci ay gox ko xam na boo xam ne daal bu ñu koy waxtaanee jamono ji mënoon na nag indi saafara ci jafe-jafe askan wi ci mbiruug assainissement cabaruk Saint-Louis mbeteel amoon na fa jamono ji nga xam ne nag moom mu ngi koy wax Ousmane Sonko dafa mel ni rek yaram waa tàngoon amul arrêt muy mbëkk rek di dem mu sukkandikoo ci direct news yéen kaay nga xam nag nag nee na moo ne day euh, kii di euh, yëg euh, jiital ONAS moom waxoon na rek ne moom Ousmane Sonko jamono ji bu ñu koy xayma des na ab bu toll ci ñeent fukk ci ay milliards ci suñuy koppar Mansour Faye Mimi Touré dañuy dem fa mbaxana doone benn loole le point actu moom moo xëy doxañ ko ci xëtamu njëkk Mansour Faye moo ngay diri Mimi Touré daal ca yoon jàppale nag la ko waral bokk na ci fond Covid 19 ak rapport bu Cour des comptes moom Aminata Touré la mu posté woon jamono ji bokk na ci nag lu tax Mansour Faye mer bu futt fëgg dënam daal ne ko loolee daañu ko layoo bu ñu koy xayma Mansour Faye daal la ma ko jox moom mooy ab citation directe ca police correctionnelle loole amoon na ba su ko juróom-ñaari fan ci weeru mai atum 2024 bi ñu nekk AES nekk nag sommet bi nga xam ne daal ñii di alliance des états du Sahel mi ngi ko doon amal bokk na ci loo xam ne le quotidien le quotidien moom la xëyitee ji nañu Mali Niger Burkina Faso ñoom nag samp nañ ab confédération loole mën a am njeexital nag ci loolee nga xam ne daal moom moo jëm ci dem ak dikkuk nit ñi waaye tamit ak lépp loo xam ne moom mooy lañu ca seetu daal moom mooy Bassirou Diomaye Faye ci mbiruk sommet bi le ak Abuja rawatina ak loolee ñeel wàlluk li di jëm ci AES daal moom lañu tànn nekkee ni ab médiateur la voix plus tey jii la mu xëy tey bokk na ci daal mbiru ko rajo télévision sénégalaise maanaam RTS ak i jafe-jafe bu mel ni daal loole app say la ci ci eh, yor bu ñu koy xayma bokk na ci daal agent yu bëri yoo xam ne daal ñàkk nañ seen ak poste de responsabilité la ko waral nag lu leen lu dul ndaje eh, intersyndical ba nga xam ne daal jot nañu ko teewee li ci gën sax doy waar yéenekaay bi nag nee na waxtaan ñi nga xam ne daal ñoom ñu ngi ko doon def seen ak diggante xam ne daal dañ leen doon enregistré ba noppi rek yónnee ko seen ak directeur bu ñu koy xayma jamono ji daal bëri na ci ñi nga xam ne daal ñu ngay takku di wëri leneen ay agent tam ñoom ñu nga doon rek joxante rendez-vous ngir nag daal di dóorantey kurpeñ maanaam xeex bu ñu génnee xeex dana am ca biir rek euro bokk na ci daal loo xam ne record yi ne kaay eh, samp na ko tey ji dañu xamal daan ne ku ca bëgg a yëkkati raaya baal faw nga xeexal sa réew diggante nag France Espagne Angleterre ak pays baala lay doon maanaam nag eh, ponkal yi nga xam ne daan ñoom ñu ngi leen doon xaar ci biir euro fësal nañu nekk seen ak taxawaay buñ koy xayma ca booru Copa America Vinicius Junior ak Brésil ñoom ñibbi nañ seen ak réew la ko waral nag moom mooy taxawaay bu solo bi nga xam ne Uruguay am na ko làpp leen nag ca booru teg dóor ya tafatina la mu wax Balla Gaye nag moom mooy dana ko dóor ba mu nooy bokk na ci daal loo xam ne la tribune sport moom la xëy ne fang ca tamu njëkk jamono ji nga xam ne daal ñoom ña nga doon amal ab jano maanaam face to face ca boruk réew léegi di des es jàppale daal ne Balla Gaye 2 cuq na ba moom mu mer futt yéenekaay bi yéen i ñi di ñu xamal daal ne euh, fitna jib na tension ba yéeg na bu baax a baax ndax tafatin tànk na jër ba xamal daal ko ne moom du moromam te fu mu ko téye daal dana ko làpp ba jamono ji ay mbokkam itam daal di ko euh, faji Aïcha li wal jeu de kaay xëy sa tey ji am na solo Grégoire ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax mbokk yi di leen ñaanal ngeen jàngat ko ci kaw jàmm ak salaam Grégoire merci beaucoup. cant ak ngërëm ñeen na la yow tamit. Euh, maa lay souhaité nga passé une belle journée ba ëllëg incha allah. yéen doog jàmm. jërëjëf Grégoire Samba Ngom ñu jaajëfal ko ci xibaar yi rawatina nag euh, lu ñeel ëttu yéenekaay yi ñu wéyal xibaar yi mbokk yi li nga xamante ni moo di la revue léegi léegi rek bu bàkk bi noppee ñu dikkaat ci plateau bi.